man la Alaaji Fall man maay président marché ambulant tey nag li xew ci marché bi mooy déguerpissement bi nga ne amoon na bi jub màggal bi te moo amaat ñu ñaan kii di fay di ko wax mooy ñun ay xale lañ yoo xamante ne nii ñu ngi fii ci marché bi fi des suñu activité yëpp amuñu fenn fu ñu jëm te beneen tamit dañuy ñaan tamit nga xamante ne am na fi bu yàgg ba léegi muy déguerpissement te ñun mënuñu jóge fii ci marché bi parce que fi lañ nekk bu yàgg ba léegi dañuy ñaan bépp lépp loo xamante ni dañ koy def ci bi ñun ñu wax ak waxtaan ak ñun ba xam ci yan anam la ñuy jaayee fii ak yan anam lañ fiy nekkee waaye déguerpissement bis bu set dañu nekk ay borom nekk lu mat ñetti junniy nit fii ci marché bi lii tamit métti na trop ñuy ñaan kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk dëkk bi ne dañuy dëgër piir wala dañuy seetal ay mbedd ñun ci marché lañ nekk ñu ñu ñaan ñu jàppalee ñu ci parce que lii situation bi ñu dund ba mu ëpp métti na ba jéggi dayoo ñu ngi leen di ñaan ñun soxlawuñ terrain football soxlawuñ terrain basket ñun soxlawuñ benn terrain fu ñu liggéey fu ñu jaamoo yàlla rek lañ bëgg loolu dong lañ bëgg ci Touba ay taay bi lañ amuñu leneen lu ñuy sàkku leneen amuñu leneen lu ñuy def lu liggéey rek lañ bëgg fii ci marché bi tamit yàgg nañ fee liggéey te nii tamit yàgg nañ fee nekk ñuy ñaan loolu kilifa yëpp ci barke sëñ Touba waaw ndax jokkoo ngeen ci ak euh, kilifa yi waaw am na kilifa yoo dem nañ ci kilifa bi muy Serigne Cheikh Baar dem nañ ci waxtaan ak moom tamit ànd nañ ci ñun ci liggéey bi ba recensement yëpp jox nañ ko ko ñu koy déglu waaye tamit jóg ak toog jóg ak toog jóg amuñu solution tamit lool xam nga dafa xaw a métti mais yéen dañ leen yëkkati woon ngeen ñëw toogaat yëkkati bi tamit ñun amuñ fuñu dem bu ñu amuñ fuñu dem kay fa la ñu toog mais Touba bari nañ marché sama waa ji bari nañ marché ko defaree am na marché yu bari yoo xam defaruñ ko lan moo ko tee dox nit ñi ñoo demul waaw waaw nit ñun ñoo dem ñi fay dem dañ koy organiser ñu defar ko marché boo xam ne defaruñ ko tamit du dinañ fa neex dem jaayee fa defaruñ ko ci lan ban anam lañ ko defaree marché defaruñ ko defaruñ ko defar boo xam ne nit ñi mën nañ faa dem marché Ngiraane ngi nii ñaata at lañ ko sumbul eggul est-ce que baax na marché Daaru Xuddoos dafa xat marché marché Madiana marché kii marché Jannatu Maxwaa bee na mu mel ne defar nañ ko mais amul benn place boo xam ne joxe nañ ko te place fi ne buñ daggee marché joxe ko borom doole yi ñooy dem jënd place yoo pare occupé ko néew doole yi nu ñuy def fii li fi ëpp ay néew doole lañ ay ñetti junniy nit nekk fii ci mbedd mi ah mais doy na waar il faut tamit ñu organiser ko nit ñëpp nekk fi. est-ce que yéen yéen a tànn mbedd mi wala maanaam seen doole moo ci toll rek. ñun amuñu pexe di ne amuñu doole amuñu pexe waaye mbedd mi ku amul doole amoo pexe ci mbedd mi nga jëm nekk ci mbedd neexul kenn. ku sañoon da ngay ci place boo wàccee tëj ko say bagage sàmm mais ñàkk pexe ak néew doole moo ñu fi bax tey suñu amul ku amul la la gën a doon ci mbedd ñu lay yëkkati di yàq say bagage ak di la toroxal neexul ci kenn. ay taalibe lañ ay gor lañ ay borom yi jom lañ waye nak yor nañu njabot rus nañu sacc rus nañu def lu ñaaw rus nañ ko wax liggéey jaamu yalla dong lañ fas yéene te bu fekkonté dañ koy def ba ñuy ray tamit dañuy rey sul ñu ci dëkk bi waye duñ dem di def lenen légui nak lan ngeen fas def ni yëkëti nañ bagage yi yéen ngi tok lan ngeen xalaat ñun duñ ci def lenn lu ñaaw lu dul toog déglu sëriñ bi rek limu wax lepp lo xamne serigne bi wax na mu depp ndigal li nga xamanteni mom moom lañ ñu sant loolu la def luñu serigne bi santul loolu suñu yon nekku ci defuñu ko est-ce que tay bu leen bëggoon jël yóbbu leen ci yenen marché yu gën sori ndax yeen da ngeen d'accord parce que marché occasion yu bari nak nu wuñ fi joggé dé mané ne la sëñ bi ñun marché fi ni lepp lo xamante señ bi santaane ko ci gog da nañ ko def waaye nak nit ki nga jël ko yobbu ko ci benen marché te taxawoo ko ci dara tamit lool tamit mënta nek nit ki bala nga yobbu fenn day fekk nga mëna am fo defar ba pare waaye defaroo bërepp bëgg a jël nit ki xey yobbu ko ci bërepp boba loolu day doy war loolu mënta nek sax ndax tay jël xey rek jël nit yobbu ko fenn defaroo ko defoo fa dara ne da ko fay yóbbu loolu def nañ ko ay yoon yoon te réussir kon bala ñu ko defaat nañ ko xoolaat bu baax a baax bala ñu ko def hmm. marché gaar baa ngi nañu tabax def ko ay magasin ay ay ay bandee fa nekk di fa agressé ay nit ay pendant des années kenn waxu ci pare ngeen pour dem foofu yéen nuñ fay demee te defaruñ ko xanaa kay bala ñoo dem ci benn bërëb dañ koy defar dañ koy defar dañ koy defar buñ ko defaree pare ngeen dem fa mais ñaata at lañ ko sumb te àggul te buñ ko ñoo ko jënd jaay lu cher néew doole kenn la ci capital motu 500000 léegi nag bu ñu la bëggee boo amul capital 500000 ñu lay jaay magasin bi 2 millions foo jëm doo ko jënd yéen seen kuréel bi ñaata ndaw la boot ay marchand ambulant ñetti junniy nit la boot ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ci am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jaay ci marché bi ñoo ëppale kuréel bi boot nous bokkuñu ci de bi qui dañ fay ñëw rek di jaay di 3000 personnes 125 personnes nous avons beaucoup de bokk ci kuréel bi ànd ak kuréel bi Nous dox ak de xamante ni ñoom nee nañ de ci bi bi dafa ay daayira ndax daayira bi nga ne ci ndox mi ci la bokk daaw nóor daayira ne bi saytu ñiy luubal nga qui kon waroon nañ normalement ñooñu tamit waroon nañ buñ leen di jël di leen yóbbu fenn ñu seet ndax dëppoo nañ ak ñooñu ndaxte ñii tamit ay nit lañ duñu ay bàyyi ma ay nit lañ duñu lekk ñax duñu lekk ngooñ ay nit lañ nañ leen taxaw comme ni ñu taxawoo nit ñi ndaxte suñu yeneen morom yi ñu ci yeneen dëkk yi mais tamit dañ leen yor ci anam yu baax ñun nag duñ manifesté wu duñ taal duñ def lenn ndigal dong lañ fas yéene jëfe moom la ñuy dundee ba keroog ñuy faatu waaw. ndax na jërëjëf.